ñoo tak yeen seen série ya xaaliso tout le monde mérite une seconde chance ba tax na ki di ya buri loolu la dal di jël génnee ko tek ko nale né mom du mëna gëm nonu ba tax na ki di ya njawar daal def bép effort ngir rek mu jégal ko mais nak dafa japp fi nga xamantene fo la japp ba légui à cause li nga xamantene mom la ko def sama gaay suñ jangaté situation bi nga xamantene mom la jawar dal di sukkandiko ba fassé ki nga xamantene mo buri ki di ya buri moom moo daal di ya togn ndax so xolé nak buri num doon waxé ki di ya yaay jawar doywaar ndax euh, mo ngi doon wax ay wax yi tegginewul ay wax yi ñagas ba nga xamantene ne di yeen jawar daal di ne tombé si loolu noonu ba pare ki di nak buri bëgg ñew dal ci kaw yaayam sama gaay lool amul benn goor bu koy sétan sa jabar bëgg door sa yaay motax nak ki di jawar dal di doxale num doxale ngir rek protéger yaayam ndax peu importe lu mel yaayam la ci lool nak la dal di yow sukkandikoo ba ki nga xamantene mo nek buri mais sama gaay est ce que kii di yeen jawar dafa ñew rek fase buri non non momi lay buri mom moko ne commencé sama baat ba tax na kii di yéen njawar daal dina koy may baatam ngir rek woon ne jigéen du ma yeb mais nag euh, foofu noonu tamit euh, si la defaale erreur sama gars yi mun nañu nag euh, nit ki di nga def erreur ba reconnaître ko nga ñëw jéggalu si ñu jéggal la mais nag mun nañ ni buri loolu la nangu te dugal si bopp bi ba tax na nag jawar jàbbante na ba sonn ngir rek mu jéggal ko mais nag dafa siisu ba léegi sama gars yi kii di nag buri lenn la dugal si bopp bi lenn rek moo ko nar a sonal muy lu mu def si bopp bi que ni man na sans man kii di jawar du dal di dem fenn et c'est vrai nak mu moko don jappalé mu moko don defal bépp course ba tax nak lool non mom la dal di yow dugal si bobbi ke ni man suma ñew lek ki di euh, jawar du baxlé le mais nak côté bobu non la dal di euh, juumee côté bobu non nak la dal di euh, daano ba di sama gaay amul ben conséquence bi nga xamantene ne war fenen ñew dal si kërëm nga mo nek nekk njawar so xolé deful dara amul lenn li nga xamantene rek conséquence bu négative la bu wara ñew dal ci kaw ki di feebar c'est vrai nag yaayam mel na nu nekk mère bi tàng na xol bon na te bëggul ki nga xam te moo nekk buri mais nag euh, loolu noonu si yaay ji la moom ak yaay ji la comme euh, kii di jawar amu si benn nag euh, tànk ba tax na nag lépp lu bon luy ñëw si kaw mère bi lay dal si kaw mère bi lay dal mais nag du dal si kaw kii di jawar les kii di nag buri il est temps mu dal di wàññeeku si gàllem ngir rek mu commencé liggéeyam commencé nag sëy te xam ni nag taaru jigéen sëy la mu génnee nag li nga xamante ne moom la def si boppam bi que suma ñëwul kii di ya jawa du daal di dem sama gars yi dama leen di bàyyi nag ngeen daal di yee conseil ki nga xam te moo nekk euh, Boury ngeen revenir loo ko ba mu ñëwaat si li nga xam moo nekk sëyam bi one love les